Cheikh bu Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. Euh, ñu door waxtaan wi ak la xew ca Ukraine nga xam ne jamono ci ji Russie da ko song euh, gannaaw nag euh, vingtième jours lañ toll ñu bëggoon a xam tey ci jàngat diplomatiquement militairement ak it yeneen fànn lan lañ ci mën a jàpp. waaw situation bi xew diggante Russie ak Ukraine nag dafa di loo xam ne dañ ko war a analyser ci angle yu bëri mhm. d' abord lañ ko war a analyser ndax tamit Russie moom moo jëkk mën a autorité yi moom moo jékki-jékki attaqué Ukraine mhm. nangu ay dëkk yoo xam ne yu mel ni Crimée yu mel ni lu Lougansk ak Donetsk dans d' autres secteurs mhm. léegi nag bi Russie defee lool ñu gis ni Russie armée wax moo ñu avancé progressivement pratiquement actuellement ñëw na ba wër Kiev donc moo ngi mënee ay bombardement om moor yi bëri na déplacés yi bëri na gis nañ ne ay million de personnes ñoo réfugiés dans des pays comme la Pologne et d'autres pays aussi donc ñu gis ni actuellement situation bi dafa métti ci Ukraine mm. mais n'empêche que mën nañ ci am mën nañ commencé am espoir ndax président ukrainien bi tudd Zelensky moom nee na jot nañu waxtaan ñoom ay ñoom autorité ukrainienne ak ay autorité russe ba ñu commencé euh, trouver ay vraiment zone yoo xam ne mën nañ ci déggoo donc loolu mën nañu mën na dal xel mhm. mais teewul dañoo gis ni Poutine malgré négociation yi mu ngi continuer bombardement yi mhm. donc nit ñi ngi koy ñaan cesser le feu mais moom dafa bañ bu wan ni leen rek moom xëy na dafa nekk ci ñaari fànn dafa nekk di négocier en même temps di continuer ay bombardement am parce que dafa am objectif mu bëgg atteindre mhm. te gis nañ ni grande ville yi bi dafa nekk di seen ndànk-ndànk maanaam armée bi dañoo bëgg jël ville yi mhm. de telle sorte que dañu am opposition bu metti seen kanam malgré que armée ukrainienne moo ngi xeex mhm. moo ngi rey moo ngi bombardé tamit moom mhm. mais teewul Russie xëy na moo ëpp doole que Ukraine te Russie xëy na bu leen neexoon tey jii am na ñuy songe Ukraine noo xam ne xeex bi dina jeex mais gis nañ ni Russie dafa nekk di jël Ukraine ndànk-ndànk te loolu da loo xam ne vraiment lu lu jar a toog xalaataat la parce que stratégie de guerre bi Russie adopté instant Ukraine dafa mel na dafa bañ enlisement dal ko maanaam mu dem ba ci biir jaxasoo comme la ko daloon Afghanistan soixante dix neuf ba quatre vingt neuf mhm. donc pour dire tout simplement que actuellement Russie sur le plan militaire moo ngi dugg ndànk-ndànk Ukraine moo ngi bu baax ay dëkk euh, yu mel ni ay Mariupol dëkk yu mel ni Kiev mooy ngi wër na ko Euh, ay doñees bi Shakhtar def yooyu yëpp Russie yi dugg na fa daal dugg bu am solo. Mhm. mais malgré ça gis nañ bale diplomatique bi daal en tout cas muy continue tey euh, lan la ñu mën a xaar justement ci négociation yooyu leen ndax jàpp nga ne euh, dina antu. waaw ah, négociation yi mënaguñu wax ni dina antu mais ñoo ngi ñaan tamit mu antu parce que gis nañ ni. Euh, monde bi ñëpp impliqué wu nañ ci gis nañ euh, ba ci président Macky Sall fii Sénégal woote na waxtaan ak Vladimir Poutine mm. pour jéem ko vraiment ñu waxtaan xool nan na jàmm mën a dellu si waatee foofu gis nañ tamit Chine ni moo ngi waxtaan ak Russie ak yeneen dëkk yoo xam ne sur le plan international mm-hmm. ñoo ngi continuer di waxtaan ak si mais teewul ba tey dañoo gis benn pression diplomatique ak économique bu Union européenne ak état bi nekk di teg ci kaw Russie mhm. pression diplomatique boo xam ne ñoo ngi wër ñoom àdduna bi di trouver ay partenaires yu leen di jàppale pour ñu sanctionner Russie mhm. ñoom dem nañ sur le plan économique tam gis nañ Union européenne ak États-Unis ñoo ngi mené ay négociations ci ay pays producteurs de pétrole pour ñoom ñu euh, yokk seen production de pétrole ndax ñoom bëggatuñu jënd pétrole ci Russie mhm. te dëkk yooyu ñu dem bu ci ni Venezuela moom dafa Maduro dafa bañ ndax Maduro mooy dëkk bi nga xam ne moo opposé wu contre États-Unis fële ci Amérique mhm. Union européenne tamit gis nañ seen bale diplomatique ñoom ak américains dem gis yi dëkk mel ni ay Qatar ak Arabie Saoudite pour ñu yokk seen production pétrole mais ba tey dafa mel na foofu amaguñ fa concret donc pour dire situation bi actuellement toll na foo xam ne xëy na européens yi xaaruñu ko woon parce que lu ci mel ni tamit Russie moom dàq jaay gaz pratiquement yi jëmoon Europe pratiquement dañ koo mais gis nañ ni Russie gazam bu bëri tam ma ngi koy jaay euh, depuis mel ni Chine. Mhm. gazoduc bi nga xam ne ma nga jaar Mongolie di dugg Chine. donc euh, Poutine ak Xi Jinping bi ñu ko inauguré yàggul donc dëgg la sanction yi dina metti si Russie dina leen dal de plein fouet mais dina metti aussi ci occidentaux yi ndax ñoom hydrocarbures yu bëri ak matières premières yu bëri dañ ko daan jëlee Russie lu ci mel ni charbon ak d'autres mais teewul euh, gis nañ ni daal sanctions yi ni mu nar a méttee ci mondial ndax gis nañ ni prix yëpp a ngi yokk euh, crise économique bu métti la xalaat ni moo nar a dal ci àdduna bi bu ñu dugul gaaw xeex bi jeex donc il est temps que jëm ci négociation yoo xam ne vraiment euh, xeex bi ci la a yem daal. et justement moo tax ma lay laajte ndax négociation yi dina antu ndax dina yomb ndax tey euh, ñoom ñi partenaire Ukraine ñoo ngi gën a gàllankoor Russie di ko tëjal bunt di ko di ko faagaagal ci lépp ndax dina yomb. waaw moo tax nag man leen du yomb ndax dëgg la ñoom ñoom koy faagaagal ñoom koy gàllankoor di ko tëjal robinet yu bëri hmm. mais dañoo gis ni Russie dafa mel ne ñoom dañoo préparé woon ci xeex bi ndax boo seetloo Poutine depuis année deux mille yi moo ngi doon wax naan OTAN na bàyyi di avancer samay base si sama dëkk hmm. parce que OTAN bu continuer di avancer man it dinaa utiliser sama stratégie donc zone d'influence u Union soviétique ak soviétique xamoon nañ hmm. dem bay waaj a euh, sanctions yi nag malgré que métti na ci kaw Russie mais dina métti ci Europe dina bi yëpp parce que point pour qu'on Russie li fa am ci hydrocarbures li fa am ci gaz li fa am ci charbon yooyu yëpp ça profité aux Européens lu ci mel ni Allemagne Allemagne gis ni moom nee pratiquement day continuer gaz ci Russie malgré l'Union européenne ni dañuy sanctionné Russie bu kenn jënd gaz ak Allemagne moom nee day jënd gaz day continuer donc yeneen dëkk donc euh, loolu nag euh, ñëpp xam nañ ni dina métti trop ci Russie que mu li muy jaay gaz wàññeeku mais noonu la nag a méttee aussi si pays européen ndax économiquement euh, au niveau mondial sax dañ koy desante donc ñaari camp yëpp daal intérêt bi mooy ñu toog waxtaan jéem a juboo xeex bi yam si parce que nit ñi ci dee bëri na li mu nar a nekk yàq ci àdduna bi bëri na tamit. tey mbir mi dafa mel ni dafa jaxasoo parce que Europe googu nga dégg ñi ñaa ngi ci xëccoo comme ni nga ko waxee léegi ñoom ñoo ngay menacer Chine Chine euh, bu jàppalee Russie économiquement Chine a ngi menacer États-Unis ne leen dañoo am xibaar yi ñuy joxe yu yi nga xam ne du dëgg euh, tey mu mel ni mbir mi dafa jaxasoo lan la ñu mën a xaar ci ci ci li ni mel ndax war nañoo gën a mën a tiit ci li xew. waaw mbir mi nag dafa jaxasoo parce que au niveau mondial dañoo gis ne dafa mel ne Russie Chine a d' autres pays dañoo def bloc contre pays occidentaux yi mel ni ay États-Unis Europe ak d' pays am ay beneen bloc boo xam ne ñoom dañoo ñëw ni daño neutre malgré que Chine day réclame neutralité mais ñëpp xam na xaritoo ak euh, échange am diggante Russie ak Chine. parce que Russie dafa dem ba bañ ko sanctionné ci wàllum dollar dafa ne man léegi samay échange je vais en yen. Mhm. monnaie chinoise donc Russie ba dafa bokk phénomène eurasiatique boo xam ne phénomène de Shanghai. Mhm. ñoo ko créé entre Chine ak Russie ak Inde ak d'autres pays de l'Asie pour maanaam frapper de plein fouet le dollar gis nañ ni Russie ay échanges commerciaux en dollars mhm. donc gis nañ ni daal actuellement adduna bi jaxasoo na jaxasoo boo xam ne on craint de pire ndax euh, quoi qu'on puisse dire Russie militairement dafa am doole bu ñu nee question armes conventionnelles te loolu kenn amu ci kaw suuf mm-hmm. donc armes nucléaires yooyu mu yor da ko permettre pratiquement muy dissuader mm-hmm. gis ngeen conflit bi mu commencé dañoo commencé benn ñaar ñetti jour mm-hmm. ñetti fan am euh, benn général bu mag bu nekk OTAN bu ni OTAN tamit il faut nit ñi xam ni puissance nucléaire la. Mhm. rek Poutine def déclaration ni moom tamit euh, nag dina génn ay forces de dissuasion nucléaire am donc pour wane ni adduna bi actuellement tolloo na foo xam ni il faut ay démarches ci ay waxtaan am ci pour vraiment ñu génn situation bi ndax situation la boo xam ne narul arrangé kenn parce que une guerre nucléaire vraiment menace l'humanité la survie humaine. Mhm. maanaam doomu ci boppam xëy na mën na fa jaaree sax euh, vraiment. jóge ci kaw. dootul exister. waaw <laughs> ñu jeexaleeg li xew euh, Afrique euh, dellu si euh, fii gine bi sa Guinée rawatina gis nañ ne gannaaw transition gi fa amoon six mois après ñoo ngi soog a dégg ay parti politique cinquante huit la ñu wax ne moom lañ toll ñu amal benn déclaration di ci jaaxle di ci wane seen njàkkare laajte tamit. ëllëgu ak it euh, lan mooy mbébétu euh, CNRD euh, tey ban jàngat nga def ci mbir moomu. waaw la xew Guinée moom man ni ma koy tàmbalee rek parce que bi affaire yi commencé dama liiroon ci page Facebook benn opposant sénégalais bu mag bu tudd Ousmane Sonko hmm. mu ne dëgg la Afrique war nañu contre lépp lu jëm ci coup d'état ak troisième mandat yooyu noonu yëpp hmm. dañ ko dañ ko a bannir baaxul mais nee na moom li ko gënoon jaaxal dafa gis population yi di jubilé di ànd ak ñu def coup d'état mais mu ne dinañ dem ba benn instant tam population yi dañuy toogaat rendre compte situation donc li xew Guinée analyse boobu man dama daf ci ànd daal daf ci collé que dëgg la parti politique yëpp àndoon ak coup d'état bi kii def Doumbouya hmm. mais tey gis nañ cinquante huit parti cinquante huit réunir ni ñoom transition bi ni mu nekk di def nii baaxul. Mhm. transition bi respecté wul transition bi euh, vraiment mënewul une transition démocratique. Mhm. bu war a am Guinée. transition bi assise nationale yi mu def pratique yi mu bëgg def yëgalu leen ko te ku moytul dina ci dàq bu bëri maanaam Mamadi Doumbouya daal dafa nekk di déroulé euh, système boo xam ne ñoom ñoom ñëpp dañ leen ci dàq moom rek la ak xalaatam maanaam pensée unique la leen bëgg imposer. Mhm. donc te loolu dafa di loo xam ne dañ koy dénoncer parce que coup mais tamit ngay mën a transition da nga war a def transition boo xam ne dafa inclusive mhm. boo xam ne ñëpp lay ëmb bépp minorité ñi nekk ci dëkk Guinée yëpp dañ leen war a ñu waxtaan pour jéem a indi ay solution pour jéem a mettre la Guinée sur les rails du développement mais déedéet pas yow nga ñëw toog ni sa xalaat moom moo baax donc loolu dafa di loo xam ne pratiquement cinquante six partis politiques yooyu ñoo ngi ko dénoncé mm-hmm. léegi ñoom menacé nañ sax nee nañ moytu dinañ dem ba ci def ay marche ay manifestation yoo xam ne dañuy wane ni ànduñu ak gent bi mm-hmm. te loolu dafa naa yaakaar naa ni du lu lu baax ci Guinée ndax dañuy peindre ay répression yu fi amoon gisoon nañ temps Denis Camara et ainsi de suite voilà donc euh, actuellement li ñu bëgg daal Guinée li ñu situation bi bi fa xew actuellement dafa donc ñoo ngi woo suñu mbokk guinéen ak euh, waa transition bi ñu xool nan la ñu mën a indi ay négociation yoo xam ne dañ boole ñëpp parce que tamit Guinée dafa di dëkk boo xam ne dafa stratégique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Cheikh Sadibou Ndiaye. jërëjëf.